mbokk yi xarit yi salaamaaleykum ginnaaw bi ñu leen nuyoo dañuy am mbekke bu baax a baax ak euh, contentement ñoo gi yéen seen première chaîne de la banlieue di IM Télé international média TV tey nag boo leen xoolee fi nga xamante ni fa taxaw muy dëkk bu tedd bi dëkk bu sell bi di siwal ñu fas yéene see ànd ak yéen tey mbokk yi ci gàmb gi nga xamante ni ñu ngi koy def fii ki nga xamante ni moo taxaw gàmm gii di alhaji ibrahim Ibrahima Khouta Diaka yàlla bi mu defee mu jógee fi nak ki nga xamanteni mom moy domam di alhaji Hadji Ka continuer liguey bi nga xamanteni euh mom la bayam don def mu nek liguey bu ama am solo mbokk ya xari nak comme tay spécial gamu lan len wax. deng sek ñu may wax Mor di ñew fi nak at jot di gamu si siwol dañu am nak man ak waa tradition. Euh, de fraternité d'amitié bu yàgg ndax 1963 laa njëkk a ñëw si woon vacances 1963 booba léegi at mu jot danaa fi ñëw euh, bu tembewul ak ma nekk bitim réew moom danaa fi ñëw ñaar mbaa ñett yoon ci at bi Alaaji Taayiru nag di sama sëriñ di sama wëllë sama xarit di sama mag ndax euh, dañoo wëllëre woon te moom ak Leyti Seck mi ma topp ci moom man maa topp ci Alaaji Leyti Seck bi nga xam ne tey boo ko tuddee ci tund Malem Hodar yi ñëpp ko xam am na fi turandoo am na fi lu nekk man nag ma topp ci gannaawam di rakkam di ànd ak moom di ñëw euh, ñu jëflante wax dëgg yàlla ci li nekkin wu rafet sama nijaay Ibrahima Xorjo teg ñu ci loxoy Alaaji Tayru ñu doon am ndénkaaneem Alaaji Daawdu Sekk mi mag def la même chose sama nijaay Ibrahima xor ja dëddoo ñu nek ci loxoy tayru ñu ne ab dénkaane lañ moy waral daire bi ñew ni quoi daire bi boo xoolee genre pratiquement léegi suñu famille rek la quoi les membres de la famille rek c'était plus large nak amna ñeneen quoi mais léegi dañoo xaw a magal euh, déplacement bi neexatul ci ñom motax ñu bari farat léegi dal dañuy soutenir moralement di soutenir matériellement mais ñu ñew ci wol ndax nak ci wol Dakar c'est un peu long mais n'empêche que ñun yàllaa ngi ñuy may kattan ba tey moo tax ñu ñëw donc euh, chaque année dinañ fi ñëw ñaari yoon ci daayira bi dinañ ñëw gàmm dinañ ñëw ziar annuel donc euh, fekk fi Alaaji Tayru di ñaan nag yàlla def nag ñu yàgg ko fee fekk lool lool lool ñu seq koog moom seex kook njabootam ak i bokki taalibeem daal yàlla yàggal ko daal yàlla na ko yàlla yàggal nangul ko sàmm ko sàmm ñu loolu laa la amoon en introduction lu may wax. moom ay kàddu yu mu wax seen si seen diggante yéen ñaar. wax te li sax geste yi nga xamante ni doon nga ko si jamono jooju. Mhm. am naa jamono jooju ñeenti junni. Mhm. xaalis la woon. Mhm. ndaxte. boo si tegee boo rek jënd na li nga xamante ne mooy 100 kilos. Hmm. nekk boo waaw xam nga Tahirou moom dafa xër rek di wax loolu waaye xam nga mën ngaa jox nit 100 000 du fay yëg gim la yëg ak yéene jim la yéene xam amul amul njëg yëg ak ak yéene amul njëg mu mën naa ko jox 1 million. mais yéene ji ma am ci man ak wéetaay bi wéet ak yàlla ak ñaan gi may ñaaral amu amu payam te telle sorte que ñun man bokk man sama différence ak Leyti mooy man dama koo jàppee ne sama doomi nijaay moom tous les droits ci moom mayeb jaamam tey man rek maa ko sañ reetaan loo ndax ay ay ay bêtises yu may wax walla yu may def donc euh, luñ def ci Tahirou Ka rek xeeb nañ ko ak lum mu mënti doon ndax def waaye ngi fi def lu ko fuuf te feeñut te lu mu ñuy defal moo bari lool lool lool te waaye mënu koo am xam nga yëg bi li ma loxo rek yëg bi sag bi ak yëg bi euh, moo amul njëkk wax booba temps j'étais plus jeune bon xam nga xam nga un jeune enseignant di dem ak a dikk dem bitim réew ñëw kërti kërti donc lu ma lu ma xalaat ne war naa neex taayu rek dama koy def lu ma xalaat ba tey jii may wax yow nii lu ma xalaat ne boo ko defee mbaa ngi wax ko bu ko déggee du ko neex dama koy romb yi dem du ma ko fekke mhm. euh, xale yi. Mhm. loolu euh, mhm. waaw loolu wax na dëgg moom parce que El Hadj Leyti Seck lu waay am rek yéene na ko.

am na lu ma dul def man Mor te dañoo forger ci euh, dañuy doylu ba dara feesul suñ bët mën ngaa yor ay milliards duñ ko gis dañ la koy yéene duñ ci wax lu bon lu rafet rek lañ cey wax di ko seede donc maandu aussi maandu maandu di layti inculqué nañu ko fii ñun ñëpp fi ah, ñëpp am ce sentiment là nit day maandu nit day doylu nit day ragal yàlla day day day day am wasila da kay top diko ko mu tew mu mu wuute c'est la même chose tu as la même attitude amna lodul loolu amna lodul def turbulence de jeunesse nak mënoon am mais à un moment donné tout s'est arrêté on s'est mis dans les rangs bon Leyti yi gis nga gis nga gis nga fi comme ñu mu siiwee ci dëkk bi ni mais dans tous les villages environnants c'est comme ça. parce que Alaaji Tayru lañ koy xoolee di ko di ko ko euh, ko ko euh, kii daal identifié tu vois boo dee Alaaji Leyti rek am na démb ko ma nuyu xaw yëgal wala Leyti gaañu na mu def ah Leyti Leyti Seck waaye Seck ma ne ko du léegi ci man la man la moor ma yow ma ngay yëg ne yow Leyti gaañu na man Leyti gaañu na man maa ñëw ànd ak njaboot gi te it ñu ngi ñaan yàlla yàlla gën koo yàggal. ñu yàgg ñëw fii ci Serigne Tahirou fekk ko fi ci jàmm moo ko njabootam ñu ñëw indi suñu njaboot ñu def fi 48 heures ensemble communion la boo xam ne ñu amuñu njëgam amuñu njëgam loolu la voilà. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant yàlla di julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla di ko fekke ay ati ati ati at di ñaanal suñu sëñ sëñ Tahirou Ka yàlla yàggal ko fi mais ko fan bu gudd bu ànd ak wér yaram di ñaanal suñu daayira bi waa daayira bi mag ñi ñëwul ñu ngi leen di ñaanal ñun ñu fi teew itam ah ñu ngi def organisation bi ñu ngi organisation bi waaw waaw léegi dañu ñaawal ñaan tam way dawlu ku mel ni Leyti Seck ku mel ni Adja Fa ak ñi jiitu ji yëpp yàlla xar leen ci àjjana firdawsi barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla di ko fekk ay déwéni déwéni déwéni déwéni déwén dee la jël nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ok jërë ngeen maa ngi leen di nuyu ku ne sa tur ak sa sant di leen wax ne di leen wax na leen sama jàng sama gàmmug nijaay gi sëñ taawiru ka di wëllëre sama nijaay layti sekk ak i bokkam ba nu commencé di ñëw si siwal gii fi ne ak yokkute lañ gis ci ñun waaye nag gisuñu si ak ak wàññeeku ndax ba ma sama mag gi naaw a sekk ak i ndayam ak ay baayam di indi fii si siwal siwal metti woon na ndax bu ma saa egsi dañ daan dem sa teen ba di wëgg di togg di fekk si néegub ñax ak benn tabax boo xam ne seenga fi nekk maag sama mag gi naawo ak suñuy yumpaañ nekk sa waañu ñu ja fee si ginnaaw di togg te léegi ñu ngi nii sama nijaay defal ñu ab etaas defal ñu ay ventilateur defal ñu suñuy douche lépp wër ñu kon nga xam ne ak yokkute la may ñaanal nag sama nijaay taayiru yal na sut sama nijaay layti sekk aw fanta dese barke lii lépp sama nijaay lay tee ko liggéeyal ak daaw de sekk magam di ñaanal sama nijaay moor Mbengue mi fi des ak waa këram di ñaanal sama sang yi ñi wér ñu yàlla may leen wér sus sama taawu ba nijaay bi naaw sekk ak i ngoy sekk ak i rakkam na yàlla may leenug wér may ko bépp jullit ba tey mënatuma sax gaa ndax samay bët gisatut samay tànk baaxatut waa na siwal gii de su ma ko bàyyee damaa fekk sama nijaay Leyti Seck ak sama yaay sekk Seck ndax ñoo ma woon fii ba ma am fi turandoo bay faal bi tuddee ma doom ba sama doom nga sama turandoo ngay di sëy ba am na doom rem kon maa ngi ñaanal samay sang yal na yàlla wasal barke si ñoom ndawal laa ngi nii sama nijaay ñaari nag la nu rayal te na bu doyut ma dellu gileem yaa ngi ne tege yal na yàlla yokk sama leeru nijaay yi yokk sama leeru ndey ak sama maam yi may leen aljanna ya gën a ko wese ñu sama nijaay taayiru yàlla gën koo mayug wér ñun yàlla may ñu wér may ko xale yi ba nuy dem ak ñëw xale yi awul lay teeke rakkam naaw sekk ke rakam ngoy sekk ke rakam yal na yàlla may leen ak wér ba ni taxaw seen gàmmu baay gi asalaamaaleykum. gannaaw ban sante yàlla julli Yonent bi ñu ngi sant sunu wasila sunu sëriñ Alaaji Taayiru Ka ñaan yàlla nan fa daan teewee ñu teew ko ren yàlla may ñu fekkee waat ko ñu sant yàlla di ñaanal sunu way dawlu yi alaaji lay di sekk ak Adja Faañ yaay ñi jiitu yu yal na leen yàlla xare aljanna ca ba sax ndax ñaar ñooñu ñoo doon lépp ci daayira yu mag yi mbooloom li fi sos daayira ñaar ñooñu la duñ leen mën a fàtte duñ leen mën a delloo gannaaw bala ñoo wax dara jiital leen ñaanal leen yàlla fan jëm ñan yàlla noo leen gënal fan jóge yàlla leen yàlla xare aljanna liñ daan def ci ëttëb taayiru ka bii yàlla leen ko yàlla fay ci àddina ci àllaaxira ci barke Seydina Muhammad ah di ñaanal suñu yàlla na fi yàgg te wér comme ni ko daan defee rek lépp lépp suñ loxo la ko teg ñooy teeru gan ñooy teral gan ba gàmmu gi jeex dara manqué wut lu fa war yëpp lu fa war yëpp la léyti daan def njabootam di ko def tey la gën a lëkki mag ñi na daan àndal nag kenn ku ne xam ne tollu diggante woo xam ne mag lan muy Alaaji Moustapha Guèye Adja Mamadou Kouré Adja Biram Si Adja Maam Maram Fall Jagu Ñang Awa Seck ñoo doon sunu mag yi mag yi daayira ñun Naawa Seck yal na yàlla dool leen wér tax ñu toog waaye ban mënoon ban daan man fii ca ndaaw xaj ñu daan ñu magal ñoo ko Samba mustafa Moustapha Guèye yal ko yàlla yërëm ca mu ca ñu jiitu ca bokk moom it moo lay ci benn lan woon kon nag ñu ngi sant yàlla rek yàlla nañ fi yàlla gën a bàyyi sunu wasale ba fi nekk moom Alaaji Tayiru Ka ñu di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla ko yàlla may gudd fan may ko wér may ko mboolem rakkam bu fi nekk mu muxaddam bi fi nekk ci kàttan yalla ak baxu yalla yalla yalla yok seni ya bun fan yok seen leer defal len jam buñ amé jam rek ñu am jam, buñ nu rek ñu yokk juma ji ñu sumu yalla na fekkee anu ya inauguration yàlla ya inauguré na ci dundu téméré at ké da xam ñi ñaanal ñepp goor ak jigen mak ak ndaw di ñaanal suñu jabor gi yalla dundu ban daayira ni ñu commencé yal nan jundu ba di ko téye ñoog seeni mag ak seeni rak waaw ndax seen jaam bu mag bi mënatul waaye mi ngi ñëw muy ndey Jóob mi di biige daabo Adja Awa Seck ak Ami Jóob Adja Ami Jóob yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla yokk wér gi ak man gi dafa ko sori doom dafa ko mboolem jëriñ xale yu góor yi moom ña ngi ca installation ba ña nga ca lépp ci organisation bi waaw ba ci yéen photographe yi ngeen xam ne fu ngeen toll lu xew rek yéen a ngi ci yal na yàlla yokk leen sunu chauffeur bi ñu ànd ak moom ñaar fukki at ba léegi yàlla ko yàlla may wér te yokk ko moom it ci kàttanu yàlla baax yàlla bu ma juumee nag ngeen baal ma <laughs> noo dundee noo dundee voyage parce que sori na. sori na mais boo ñëwee coono yëpp dina wàññeeku mu ndax accueil bi déjà neex na. non boo ñëwee di dina euh, di nga fàtte coono gi ndax accueil bi déjà moom neex na moom dina la yaatal dalal la nga santini ko yaa ngi sa biir kër moom.

Eh, neex na neexut daal <laughs> ndax dagg soble baa ngi xaw a métti. dagg soble bi daa xaw a kat laa mais soble baa may rey. <laughs> non am na coono bu ndaw da may graw sant yàlla rek. mais hmm, hmm, hmm. ku jullite la ku jullite la yàlla. ku nangu dimbali doomu adama di taxaw si soxla doomu aadama moom asalaamaaleykum maa leen ni nuyu di len ziaré man la awa sek doomu lay di Sek ah sama papa ak lay Sek bokk nday ak bay ñu yàgg ñëw fii siiwal di taxaw gamu gi ñaanon da fekke ko ren yalla may ñu fekke ko ñu sante yalla bu baax ci fekke biñ ko fekke di ñaan yalla yok carton li ba nga xamne lepp lépp luñ si yéene rek yalla dinañ jàppale ñu yeggale ko ci jamm ak salam man la awa sekk waara ni ñëwee rek comme niñ daan ñëwee rek ak engagement ak euh, yéene juñu am ci bés bi ndax relation bi pa bi am ak suñu papa mom moñu animer tout temps mom ci lool lañuy dox loolu mooy sunu xalaat moom lañuy doxee moom lañuy ñuy waxee yéene bi daal du dara lu taxawu gan ñi togg ba mu baax jox gan ñi ñu lekk recevoir leen may leen kanam gu leer ah taxawu leen ci lépp loo xam ne rek mooy seen bëgg-bëgg rek ñu ànd ceeg ñoom ci jàmm ak salaam ngir taaral bés bi rek loolu mooy suñ taxawaay. Mm-hmm. Mm-hmm. ñoom ñaar seen ànd dafa yàgg Lady sekk ak Alaaji Tahirou seen ànd dafa yàgg lépp lu Pa Tahirou wax si Lady Seck rek dëgg la am na sax loo xam ne xaju ci des bi mënu ko wax mais ñun fekkee nañ ci lu bëri di dundee loolu ba léegi si Euh, témoignage yi mu am ci Alaaji Seck na du def lu dul rek gën a sedd suñu xol ñu gën a feddali kóolare suñu diggante ak ak siwal gën a feddali suñu kóolare ak diggante ak Alaaji Tahirou Ka ndax moom ngor googu a jàppee sam papa Leyti dund na ba dee ngor lañ séq jàmm lañ séq yéenante jàmm lañ séq jàppalante lañ séq ku ci nekk sa njabootu morom mooy sa njaboot kon ñun ñun ñi fi de itam ah xale nekk xale tërëwul a am xel nekk xale itam tërëwul a xool la say waajur doon def nga teg fa sa tànk du ñu def lu dul rek appuyer ko ci loolu rek ànd koog moom di ko sant nag moom Pa Tahirou Ka ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax taxawoon na papaliti ginnaawam mu ngi koy ñaanal guddi ko ñaanal bëccëg te saa bu nu toogee siiwal rek ñu rappeler rek relation ak Leyti sek muy loo xam ne dañu gën a encouragé ci li ñuy def ñi ngi leen di sant yéen itam di leen gërëm chaque année ngeen ñëw assister ñu taxawu gàmmu gi def euh, interview yi muy loo xam ne la ñu rafetlu di ñaana seen seen organe de presse bi di ngeen bëgg ci lu baax yàlla nañ ko yàlla defal yokk ba yëg ko rek ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngor gi ngeen fasante ak ñun kóllëre gi ñuy àndee di ko liggéeyee yàlla bu ci kenn réccu dara sant na leen bu baax a baax a baax gërëm nañ leen bu baax

siwal moom suñu siwal la bañ juddoo ba léegi moom la ñu xam donc voilà man daal loolu laa gis sant yàlla rek daal. mais euh, uh-huh. ne ah ñu ne dañuy dolli sant parce que si suñuy nopp dañoo judd fekk leen. te dégg nañ ne loolu lu jiitu la sax ñoom la ndax seen papa la woon ba ñoom ba ñun tey te ñaan nañ yàlla mu gën a sax yàlla di ñu yokk wér ak mën-mën ñuy topp suñu tànk papa yi siiwal daal suñu siiwal la suñu kër maam la. Mhm. bon man nag moom li ma ñëw siiwal bariwul disons que c'est ma troisième fois 2017 euh, laa fi commencé ñëw waaw ndax ma nekkee xale ba léegi siwal moom damay bëgg a ñëw waaye mu su ma am chance su ñëw. donc 2017 là commencé ñëw personnellement né wa kër gi yëpp daan nañ teel a ñëw ñoom. biñ fi commencé ñëw léegi lan lan nga gis loo xamanteni changé na par rapport ak li fi njëkk a ñëw alors ba ñëw 2017 ak légui li fi changé bari na donc euh, comme par exemple cadre de vie bi lu bari changé na fi donc loolu laa fi remarqué quoi mis à part ça. ça va yokkute rek ak jëm kanam la fi gis. moo ren noo leen nekkee ci ci ci bi parce que gis waaw bi dégg na né daan na gëna xum ñu bari am nañ té terewul nak comme lima la wax rek jaar ci tank yu baax yi rek lañuy def donc du coup ñu ngi ni ñoy gérer bi walum dagum soble bi sama assistante yaangi ni xalé xale ñoo dafa fi affaire yu baax yi ah man nag ku ma xamul nag dégg ma dama jaxase nekk lawbe naar ak faramareen dama mën a dama dagg soble mu nokkos eh, Ablaye di dom ci Leyti Seck comme ni ko waa di faral di waxee Leyti eh, suma rakku papa la eh, mook sama papa ñoo ndey ak bay kon yàgg nañu teewee daal gàmmu gi di ñaan yàlla nag mu fekk ñu tànk mi ñuy fekk ci réew mi ñuy wér fas nañ koy yéene di ko bokk ak waa dëkk bi di ko bokk ak sëñ Tahirou Ka di ko ñaanalu aussi wér gu yaram ak fan gudd mu yàgg koy fekkee di ko yàgg jiite ñun ñëpp ñu yàgg ko fekkee di dem ci jàmm di ñëw ci jàmm waaw loolu daal mi nga xam ne. Euh, waaw loolu wax na dëgg sëriñ bi su waxee loolu euh, depuis ci sama maam la sama maam Fat mi nga xam ne moo jabootee Leyti Seck ak Momar Mbengue Seck mii depuis booba la effectivement parce que jamono yooyu ñëw fi yombuloon bon góor gi aussi euh, Pape Leyti defoon ko daal maanaam. li ñuy wax cheval de bataille parce que moom daf ko gëmoon dafa gëmoon loolu coloré bobo, te coloré bobo aussi yàlla dogal mu tagat ci njaboot gi parce que ñun nous ñëpp dañ daan gis coono bi muy daj ba tax ñun ñëpp ñu na pas bi daal bés bu yàlla defetee muy dem ñun daañu fexe di ànd ak mom di ko wéttali ci loolu loolu bataille. dox façon tey te fas nañu yéene incha rabbi duñ mës jamais baisser les bras parce que nous rek dafay mel ne dañ koo wor parce que xamoon nañ fi sëñ Tahirou Ka euh, toll ci moom ak fu siwal tollu ci moom donc li ñu ñaan yàlla mooy loolu mu kontinuer effectivement loolu coloré bu yàgg la parce que lu ëpp 50 ans la def naa juróom fukki at lu ko toll wala lu ko wees dootul ay caaxaan te loolu foofu nañ toll. Mmh.

et puis modeste yalla defone mu nek nit modeste. nit modeste nit sincère franc mukk di wax ci nit toujours lay donc loolu li tax rek moy bëggul bu gens nit ku nangam li wala la lañ ko ñun parce que nous ñi tous ay parce que ñun ko lak juroom dootu xalé de tout temps. donc moom njub googu daal lañ xam te ñun ñi ci tànk boobu lañ bëgg a topp incha allah. Ah, waa bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci bés bu tedd bi bés bi nga xam ne bésu gën gi mbindeef di sayduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu fas yéene fi ñëw rek jaayante liggéeyal. comme ni ñu ko suñu sëriñ digalee sëriñ El Hadji ngeen liggéeyal leen yàlla ndax lépp loo leen fi def moom ci boppam nee na mënut a fay yàlla mën a fay yàlla na ñu ko yàlla fayal waaye duñ suñu wax du ci bëri ay ay dag lañ rek ndax euh, ndigal rek lañuy ñuy comme moom kër gi moom daanaka duñ fi nekk duñ fi ay gan ci kër gi lañ bokk. siwal moom bu amee rek fi mu nekk nii moom toogaay amatul dara amu amatul ngir ñëw màggal bésu sang bu tedd bi rek. liñ ci war nag mooy maanaam ñëw rek jàpp ci liggéey bi comme ni ñu ko sëñ bi digalee def ci li nga xam ne moom moo ñu fi war liggéey liggéey ànd ak suñu ay rak ay technicien yu mel ne El Hadji Daouda di sama jarbaat ak sama frère bele ngay séen la muy muy euh, Ousmane Seck ak sama grand frère bi ngeen gis nii bu yaanji bi mu El Hadj Moustapha ñëw pour jàppale ñu ci pour tamit teete ñu gunge ñu ci yoon bi waaye daal xam nañ ne daal mënuñ am amuñ daal luñ leen di wax waaye xam nañ ne daal dëkk bi daal dëkku rootuwaay la dëkku lislaam la dëkku jullit la dëkku nit ñu gëm yàlla rawatina nag ki nga xam ne moom lañ fi bàyyi mu nekk ci xilaafa gi di ñaan yàlla yàlla may ko fan wu gudd gu ànd ak wér mu dund comme ni ñu koy ñaanee mu am téeméeri at yàlla na ko yàlla defal ñu ànd ko ak moom di fi teew di ñëw di liggéey ci bés bi di ci barkeelu comme ni ko comme ni ko suñu morom yi defee ci yeneen ci yeneen ci yeneen yeneen këru daara waaye comme ñun siwal lañ am te moom lañ yaakaar ñu ñëw fii rek taataan fi suñuy kii daal asalaamaaleykum wa rahmatullah El Hadj Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbooloo mi julli ci maa ngi ñu ñëpp seen tur ak seen sant ñu waa Sénégal yëpp ak képp ku waa ashhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuuluh waaw sama wax du bëri si bés bi bésu sant yàlla bésu ñaan yàlla bésu tagg Seydina Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam ba su delloo suñu xel ak suñu xalaat ne yàlla ñu moom ba su njukkal tamit ñi nga xam ne dañoo tàgg Rasulullah sallallahu alayhi ba su njukkal la aussi ak delloo njukkal di ñaan ñi nga xam ne dañoo bind sallallahu alayhi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuhu waa ñu ngi lay bëgg bu baax a baax a baax di am kontaan bu wér si ñëw bi nga ñëw fii siwal Siwel mu ngi nekk euh, département de Malem Hodar dëkk maam Alaaji Ibrahima Xorjaka ñun ñu ngi nekk Dakar yor fa benn association boo xam ne tout le temps su gàmmu gi jotee dañuy ñëw pour dundal ko fii Siweul association bi nu muy demee mooy wax dëgg dañuy fexe ñii ñu ñi nga xam ñu nekk si koñ bi ñooy dajale ku nekk loo am rek ñu dajale ko su paree su ñëw su gàmmu gi jotee ñu def suñu ndëkkee jox gan jox jël jënd café séddale ko gan su gëdee tam ñu def ay beñe séddale ko gan ngir guddi yonent bi sallallahu alayhi wa macha allah wax dëgg yàlla chaque année day gën di yokk lépp luñ mën a ren rek si déwénee dañuy gis ne macha allah day gën di yokku kon loo sant yàlla ndax lu ko waral mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi moo nekk koo xam ne lépp looy def si moom rek bu ko xeeb ndax yokkute lay doon ba tax na wax dëgg yàlla ren loolu lañ gis ren loolu lañ gis gis nañ si yokkute bu baax a baax a baax si bépp fànn nag.

su ñëwee fekk si la yow yaa ko war a dalal yaa ko war a dalal yow waroo soxla dara sa néeg sax da ko war a génn nga jox gan yi ñu nag loolu lañ xalaat moo tax ñu sos association bi. wax dëgg yàlla loolu lañ gis ba nga xam ne chaque année day gën di yokku en tout cas ñu ngi ñaan yàlla daal lii jëm kanam moom laay wax booy tout le temps ma ne lii il faut ñu xam ne léegi léegi di lii dañuy ëpp loxo léegi ku nekk lépp looy def su dee nga fexe def lu ko ëpp yaakaar naa daal dana am solo incha allah rabbi yeen nak ñu ngi gërëm bu baaxa baaxa baaxa baax ci li ngeen xam ne ñew ngeen fi ci siwal ndax yaakaar na jumu ren moy seen 4 ans ngeen ñew siwal ko loolu ñu ngi koy rafetlu bu baaxa baaxa baax ndax Dakar sorina Dakar sorina ngeen jógee Dakar ba fi ha ah, yeen c'est-à-dire da ngeen wax ne ñin ci ci askam lañu bok yeen bokk yéen kenn wax dëgg yàlla xeebu kenn ko loolu ñi ngi sant bu baaxa baaxa baax ci baax yi ngeen xam ne ba ngeen ko Dakar ñew ba fii siwal wax dëgg yàlla ñu ngi gërëm baaxa baaxa baax ci côté boobu ñu kontaan bu baax a baax grand merci jërë ngeen jëf. sa mais tey euh, da ngeen def euh, waaw ban euh, allah rabi loolu def nañ ko depuis démb peut-être dañ koy dañ ko wax ne mën na ko cotiser dañ koy cotiser mais comme sànq sànq sànq li ma la wax rek ku nekk rek am na loo xam ne dañ la naan su année bi na nga ko joxe. léegi suñu demee ba nga xam ne fi mu toll nii gàmm gi jublu si na si la ñu jën lépp loo xam ne war nañ ko jën ñu teg ko comprendre nga gisoo dañu andi si rajo moo nekk noonu di animé yaa ngi dégg ñu jëndee ay beñe jënd kafe ak leneen ak leneen ngir jox ko gan yi yënt bi alayhi salaatu wasalaam comprendre nga chaque année noonu la ñuy def wax dëgg yàlla gars yi daal wax dëgg yàlla booy jàmbaar lañu am na si passé bu baax a baax a baax a baax gis nañ si yokkate daal wax dëgg côté boobu ok ah, saakum la xëy. Kaffrine waaw ñëw si gàmm gi rek guddeeg yéenant bi ñu fas yéenee gàmm ku ñu fi indi nag basiiru la maa ngi soogay ñëw maa ngi soogay gàmm see waaye lu ma jot a gisagum moom macha allah waaw ñu ngi ci togg yi daal waaw ñu ngi si togg yi di sant yàlla pour fekkee ay déwén déwén waaw. gën a si gàmm gi ah xam nga dëkk moom boo fi mus a ñëw noo fi ñëwee rek fekkee fi nii noonu ngay ànd ak ñoom doxalee ñoom ah, dégg nag turu sëñ bi bu yàgg waaye maa ngi soogay ñëw ah, ah, waaw. excellent añ bi moom ñu ngi si kawam lépp moom ala daw na dara manqué gan yaa ngi ñëw mbokk yaa ngi ñëw ak li wër dëkk beeg ñëpp ñu ngi ñëw di jàpp ci liggéey bi waaw. ok ngaari ka ngaari ka siwal waaw bi mooy ASC kafe gi Daaru Salaam léegi nii ay xale yu ànd le ñun ñëpp def ay cotisation chaque année bi mooy ñett at ñu koy def bu ko defee ñi jàll suñu café segg defar suñu beñ suñu lépp bëgg nañ daal képp koo xam ne nii ñëw nga ci dëkk bi rek si loo loo bëgg rek ñu ànd ci yow café yaa ngi fi beñe baa ngi fi ataaya baa ngi fi meew maa ngi fi lépp a ngi fi booy ay xale yu ndaw ñoo jàpp pour ñu liggéey lool ànd si woon ndax suñ maam moo woote dañoo war a génn waaye ñu ngi cee def seen doole ak seen poos lépp bu ne booy ñu ngi nii ñoom ñëpp ku si nekk su guddi gi lépp kenn nelawul dañoo fanar segg ba bët set ñu xëy séddale ñëpp dugg ci mbaar yi jox ñëpp ñu lekk ba suur bu ngoonee bu ñu demee ba programme jàng bi commencé ñu doolu yóbbuwaat ci biir ñëpp naan ñëpp boyangi ni taxaw ñun ñep ay jàmbaar lañ ñing ci japp bu baaxa baaxa baax ñi ngi leen di sant nak yeen waaro rajo bi di leen gërëm ndax seen liggéey rafet na ñi ngi bëgg ci yeen bu baaxa baaxa baax ak dalal bu ngeen ñi dalal merci beaucoup. non non ki wa mooy père waaw jamono. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi leen di nay bu baax di leen euh man la saliw Ka ñi gën ma xamé ci siwal ñun nak comme niko grand bi waxé rek ñoo defone ay codicace. cotisation fas yéene fa teral ñi nga xam ne mooy suñu gan gan ñi fi ñëw ñëpp comme niñ ko defee nii bu ngoonee ba gars yi gan yëpp dem si tente bi ñu jël kafe gi dem ba foofu di leen ko séddale séddale leen ko bëgg nañ ci nag ku ñu si jàppale bu baax a baax ñu gis ne chaque année ñu ngi see gis yokkute ngeen bëgg ñu ñu si ñaanal bu baax fas yéene nañ commencé nañ ko da bëgg nañ bu mu am fu mu fee daal fu mu am fu tax taxawee chaque année daal ñu gën ko gën ko yokk bëgg nañ si loolu incha allah ñu ngi leen di sant nag bu baax si seen teewaay bi ak dalal bi ngeen ñi ngeen dalal ki ngi sant bu baax a baax macha allah seen taxawaay rafet na torop macha allah. waaw. salaamaaleykum wa rahmatulah. ñu leen siyaar bu baax a baax di leen gërëm waaw bii mooy waa koñ bi ahlu Daaru Salaam kafe gi di chaque année chaque gàmm dañ koy def incha allah man chaque gàmm nag bëgg nañ mu yokk incha allah. ba ñu fi viral kafe lañ commencé ay beñe incha allah danañ bëgg nañ dre ay nag ay gërëm saar yooyu ñu ñaan mu yokk daal waaw baax na ñu ngi sant bu baax danañ gërëm. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu waa ASC Café gi Daaru Salaam leen ziare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu suñu xalifa bi yal na yàlla yàggal ko fi taas ñu si barkeem barke alxuraan waaw lii de. ñin ñoko ko organisation doon ko def ñetti at ngi ni ñing koy def ci ren waaw te jing sey gis yokate bu baaxa baaxa baax a baax chaque année rek dinañ gis lo xamni ni dinañ def lo xamni ne defuñ ko won daw mais dañuy ñaan yalla rek yalla yalla defal ñu ci jappandal bu jaaxee rasulullah xol yëpp nek ben bu ko defé ñin ñep lepp luñ bëgg rek inshallah dinañ ko am waaw serigne bi dong moñu ñor mom liggéeyal waaw. instant yi ñun ñoo ngi nii xale yëpp ñoo ngi nii ASC Café gi Daaru Salaam lañ koy wax moo nekk Daaru Salaam am na ñoo xam ne ni sax ñu tey ñëwuñ waaw. waaye nag ñu ngi santaale suñu gannaaw bi Mor moom moo ñu jàppale moo ñu dooleel lépp moom ci loxoom la def lépp looñ manqué rek dañuy ñëw ne ko lii moom manqué mu defal ñu ko moom daal lépp fi mu ne nii ci loxoom la ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di leen sant yéen bu baax di leen gërëm. sant waa rajo di leen gërëm bu baax di leen ñaanal jàmm nag chaque année ngeen man di ñëw ñu fekkee ko ak jàmm barke alxuraan wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen si gamogi. gi man maay Ndiamaka Mariama sama yaay ñu ngi si gàmmu gi rek fii siwal la kër Basiru Yaama gàmmu gi dañuy faral di gàmmu fii gàmmu gi daal gisuñ ko loo may màggal yonente bi rek sallallahu di ndokkee suñ bay ji alaaji Tayru Ka di ko sant di ko siyaare lu bari di am mbégte ci gàmmu gi daal dafa woote daal ñu ñëw pour jàppale ko ci gàmmu gi di si barkeelu waa fii gi neex na trop macha euh, waaw waañ bi de ñu ngi si rek di toggu ci defar nañ ndékki ba pare toog añ yi pour ku ñëw rek nga lekk ba suur naan mandi pour lu gan ñi kontaanee rek moom la ñuy wut fi ñu toll rek ñu ngi seet lu kontaan too gan ñi daal pour màggal guddi yonente bi. bi mooy ñeenti waaw loolu moom ñu sant ci yàlla rek gërëm yonente bi sallallahu alayhi wa di ca am mbégte loolu moom soo ko waxee ñun ñu juddoo siwal loolu lañ ci xam loolu lañ ci gis at mu nekk daal day gën a yokk boo amee pas-pas lépp loo ci yéene rek bu déwén saa da nga gis lu ko ëpp waaw loolu moom am nañ ci te lool gis nañ ko tamit chaque jour daal day yokk